asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. alhamdulilahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala sayidina wa nabiyina muhammadin almakin wa ala alihi wa sahbihi zawi ridwan wa tamkin ginnaaw bu nu sante suñu borom subhanahu wa taala julli ci yonentam bu tedd bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama dellu santa seexna alxadim alayhi akbaru ridwanullahi albaaxil xadim di ñaan suñu borom subhanahu wa taala fayal na ko waaye di ñaanal bu baax muhammadul muntaqa suñu borom subhanahu wa taala ko fi lool ba li liggéeyal lislaam ak njabootug lislaam moo àggale ko fa kawe njortam ci barkeeb alquranul karim dellu siyaarat bokki M-Media Group Nour Daarayni mbooleem góor ñi ak jigéen ñi di santaat suñ borom bu baax bi mu may ñu dikkaat ci jataay bi fas yéene àndaat ak yéen ci sunu émission zaadu nisaa'il muslimaati li nasihati muminina wal muminaati muy jataay boo xam ne jataay laayante biir la waaye jataay fàttalente la mu mel ni jataay la boo xam ne dañ ko duppee suñu bokki soxna yi waaye nag yimul ci soxna yi ak mbooleem euh, sunu bokki góor ndax al muslimiina wal muslimaat lan wax jullit bu góor bi ak julit bu jigéen bi kon nasiha gi laayante biir gi de lamb mboolem góor gi ak jigéen mu mel ni jataay bi paase noo ngi woon ci fàttalente diggante jullit bi ak moroomu jullitam ak laayante biir li ci mel ni ki moytandiku jëw moytandiku njëstal mooy ndiku ñaaw njortu euh, mooy ndiku jëf ju ñaaw moo xam wax ko la wala jëf ko waaye mooy te ndiku rambaaj mooy ndiku wax lu du dëgg mooy ndiku rëy rëylu wala rëy mooy ndiku njëstal mooy te ndiku wor mooy ndiku werante waaye baña xool kenn bëtub ngëneel ndax fa kullu man suufu fa xool kilaab falkalbu xayru minhu doonal irtiyaab naka noonu bañ a àndaale ak paasex koo xam ne ab saay-saay la ci ludut dut nag lu mënta ñàkk loo xam ne lor la ndax àndaale day day royaatal ci ki muy àndal anil mar i la tasal wasal an xarinihi fa kullu xarinin bil muxaarini yaqtadi Eh, Sëñ Tuubaa dafa wax su fekkee bëgg nga xam digg digg nit ki bul ko laaj moom mooy kan xoola rek ay àndandoom nay àndandoom mel rek noonu lay mel anil man ay la tasal wasal an xarinihi fa kullu xarinin bil mu xarini yaqtidi naka noonu kon loolu nga xam ne moom lañu lim ci ay jikko yu ñaaw lu ci mel ni ki jëw ak njëstal ak ñaaw njortu ak jëf jëf ju ñaaw di ko wax wala nga koy jëf ak rambaaj ak fen ak rëy ak njëstal ak wor ak bari werante a xool kenn bëtum ngëneel loolu lépp dafa bokk ci bàkkaar yu mag yi nga xam ne boo ci sax ba faatu te tuubooku man nga cee am alkande ëllëg yow man xiyam eh, naka noonu di tuub jëm ci suñu borom subhanahu ci lu gaaw soo defee bàkkaar bàkkaar xañ na mënta ñàkk waaye jàm bi bu defee bàkkaar xam ne def na bàkkaar diggante mag boromam mu jiggulu bakkar ba euh, loolu moo tax sëñ bi wax euh, wa dum ala tawbati fi kulli zaman min jamii al isyaani sirran wa alan del ci mboolem jamono ci euh, suba yi ak ngoon yi moo xam lu nëbbu la wala lu feeñ la dee ko tuubal suñu borom subhanahu wa taala comme bàkkaar bari na li waral bàkkaar bari na ci xool wala wax wala jëf yooyu yëpp rek nga sax ci tuubal suñu borom subhanahu wa taala naka noonu di sax ci noppi su fekkee ne danga mer ndax bariwaana ku mer def loo xam ne ba mer ma jeexee rëcc na ko la waral na dafa topp meram waaye soo meree nga noppi Euh, xam loo war a wax nga bañ koo wax mm, am loo mën a def nga bañ koo def su mer ma àggee rek su mer ma jeexee rek doo ci am lenn luy rëcc lool moo tax ma ne na ngeen di noppi su ngeen meree waaye sax ci ay jikko yu rafet jikko yi nga xam ne jikko yu tedd la yi suñu borom subhanahu wa taala dénkoon yonent bi alayhi salaatu wasalaam ci alquran karim muy makaarimal axlaaq waaye nag ngeen moytu ndikku ak naafiq ndax naafiq baaxu ñeent la yoo xam ne day tabbal nit ki euh, euh, ci ak naafiq boo ci am benn rek amul naafiq boo ci amee ñeent yëpp naafiq nga bu matale ñëwoon nañ ci ci jataay bi nga xam ne moo paase naka noonu am na yeneen yoo xam ne day dugg ci naafiq yoo xam ne sëriñ bi indi nañu ko mooy euh, buxdu ahlil ilmi wa buxdu mujalasatul ulama wa tarku salat fil masajidi wa muxaalatatu nisa sëriñ bi nee na ñeent yi bokk na ci màndargaay naafiq bañ boroom xam-xam bañ a toog ak boroom xam-xam ak bàyyi julli ji ci jàkka ja waxtar ku salat fil masajid wa muxaalatatu nisaa ak di jaxasoo ak jigéen fu aw jigéen nekk rek nga nekk góor dem dem dem ci seen biir jaxasoo ak ñoom nee na loolu bokk na ci màndargaay naafiq waaye itam ngeen mooy tandiku wax ju bari kunu anil kalaami kuunu ilal xayrati saari'ina moytandiku wax ju bari ndax wax ju saa bu bari rek eh, lu indi bàkkaar dugg ca benn nga jëw wala nga rambaaj wala nga dugg lu saw yoon nekkul kon niiwal say wax bokk na ci li nga xam ne lu am am solo la ndax man kaana yuminu billahi wal yawmil axiri fal yaqul xayran aw li yasmut gëm yàlla gëm bis ba na ngay wax aw yiw nga noppi waaye itam gaawtu jëm jëm ci sàkku aw yiw wala lépp luy joxe aw yiw ci nga jëf ko wala nga wax ko nga gaawtu jëm ca loolu bokk na ci ndénkaan yi nga xam ne moo jàlloon ci jataay bi paase waaye na ngeen na ngeen buur jëm ci julli ci njëlbeenug waxtu saay bu ngeen toogee ba waxtu julli jot lépp lu ngeen nekk na ngeen ko bàyyi te dem julli ji ca ca njëlbeenug waxtu wa ndax julli ci njëlbeenu waxtu moo gën julli ci digg waxtu waaye julli ci digg waxtu moo gën julli ci catal waxtu waaye julli ci catal waxtu moo gën julli ci ginnaaw waxtu waxoon nan euh, ci jataay bi paase sëriñ bi wax na ne wax na bi ann afdala taaati salaatuna fi aw awxaati bokk na ci jaam yàlla yi gën rëy ci jaam yàlla yi mooy nga nga euh, julli ca waxtu wa mooy nga julli ca njëlbeenug waxtu wa julli ca njëlbeenug waxtu wa dafa am solo lool rawat na nga dem ca mbooloo ma ànd ko ak mbooloo ma ndax am na xadis bu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax julli kenn ak jullik mbooloo jullik mbooloo ëpp na julli kenn ñaar fukki daraja ak juróom ñaar am riwaay bu wax ñaar fukki daraja ak juróom mu mel ni loolu am am solo la ndax euh, Sayyidina Ali karramallahu wajhahu doon na lim juróom yi nga xam ne musiba la musiba yi àddina la bokk na ca faat jullik mbooloo ndax jullik mbooloo dafa am loo dafa am solo lool moo tax mu wax ne bokk na ci musiba yi àddina mooy euh, nga faat jullik mbooloo jullik mbooloo faat la te amoo ci benn ngant danga sàggan rek ba mbooloo ma julli ba waxtu julli yu dikk ba mbooloo ma dajee ba julli te amu benn ngant bala te dem ca mbooloo ma nga dem julli ji ko ne la loolu musiba ci àddina waaye bokk na ci musibaay àddina itam mooy boroom xam-xam bu faatu boroom xam-xam bu faatu naka noonu raddu mooy ku dikk di laaj ci jëmm yàlla tax eh, ñakk yeyoo laaj di laaj ngir bëgg mu dundee nga am lànk bañ koo jox loolu bokk na ci musiba àddina naka noonu béccingal sa ñaari way jur loolu bokk na ci musibay àddina naka noonu waman u zakat bañ joxe asaka sa alal mata génne asaka ci nisaab ba ak at ma nga lànk bañ a génne àddina bañ a génne asaka ne loolu bokk na ci musiba yi waaye ban ci jël rek mooy mooy fawtu salaati ma imam mooy waxtu julli jot nga ba bañu dem ca mbooloo ma te amuloo benn ngànt bu la dee bu la tee dem ca mbooloo julli ko loolu bokk na ci musiba yi nga xam ne musibam àddina la moom sayyidina ali karamallahu wajhahu euh, am na xadis bu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax man tatahhara fi baytihi thumma masa ila baytin min buyutillah xutwata ihdahuma taxuttu qatia wa uxra tarfau darajat ki nga xam ne dafa toog ba waxtu julli jot mu waaj ba jëkk génn ci këram wala génn ci palaasam walla génn ci barabam dox wuti jàkka ja jéego yi muy jéggi jëm ca jàkka ja bu yëkkatee tànk ñu faral ko ay bàkkaar yëkkatil koy ja bindal ko tuyaaba ba keroog muy àgg ca jàkka ja ba toog bu àggee ba toog diirub la muy sax ca jàkka ja malayka yi ñu ngi ko tiim di ko ñaanal yërmande suñu borom di ko ñaanal ngërmande suñu borom subhanahu wa ba keroog muy génnaat ba jéggiwaat ay jéegum delluwaat fu mu jógeen kon loolu julli ji ci mbooloo am na solo lool lool lool lool lool kon kunu lada salaati naahidiina li awwalil awxaati ajilina waaye bokk na ci nga moytandiku bopp ak la ca aju loolu jaar ci jàll ndax bopp ak la ca aju mooy lu mel ni nopp yi ak làmmiñ wi eh, ak bët yi bañ a diglu lu xaraam bañ a xool lu xaraam bañ koo wax waaye biir ak la mu tam bokk na ci loxo moo biir ñoo làng ay tànk moo biir ñoo làng naka noonu pay moo biir ñoo làng yooyu yëpp nga moytandiku ko bañ cee mooy suñu wa taala waaye di bari loo julli ci yonent bi alayhi wa moom mi nga xam ne mooy zahibul ghamam kon bokk na ci itam suumu salaasatan min al ayaami min kulli shahrin ala dawaami bokk na ci nga fexe ba weer wu dugg nga woor ci ñett fan weer wu dugg nga woor ci ñetti fan ndax day mel ni soo ko baaxoo di def weer wu dugg nga woor ci ñetti fan soo ko ko soo ko defee kon day mel ni yow danga woor sa giiru dund ndax benn boo jëf ñu fay la ci fukk Eh, boo duggee ci weer woor ca ñetti fan kon day mel woor nga weer wu yëpp soo ko defee ci weer yëpp day mel ni woor nga jamono loolu moo tax eh, Sëriñ Tuubaa wax ne imam Malik daana ko def wa kaana saw ma fi jim imam Malik radiyallahu anhu weer wu masa dugg daana sa woor ñetti fan ñett fan yi boo ko fële muy fan weeri fan muy mel ni woor nga weer yëpp boo ko defee sa diirub jamono sa boo ko defee diirub weer yi mel nga ni nga jamono kon loolu bokk na ci euh, suumu salaasan min al ayaami min kulli shahrin ala dawaami naka noonu tuubu ila bariikum min xabli an jaakumul mawtu muddata zaman na ngeen tuub di jëm ci suñu borom subhanahu wa mi nga xam ne moo sàkk jaam ñi waaye nag ngeen def ko diirub jamono yi def ko diirub jamono yi balaa faatu ndax nga nekk ci bàkkaar di wax ne du ma tuubagun damay xaar ba ba doon mag wala damay xaar ba waxtu sàngam loolu waxoon na ne min alamati shaqawa loolu bokk na ci mandargaay texee di la mandargaay texe la ndax euh, alquran dafa wax ne al mawtu laa yaati illa baxtatan dee moom say buy dikk day bette kon al mawtu yaati baxtatan wa rubbama yakunu za sawaxilin muxtarima Sëriñ Tuubaa nee na dee saay buy dikk day bette barawaana bu dikk fekk la nga naan bu déwénee ba def nangam bu weeru dee bu bis sàngamee bu suba bu ngoonee far dee dikk yóbbu la nga yóbbaale sami bit kon loolu moo tax waxtu wu nekk rek kun im ni waxtika ni nga xam ne ko mu ahlu tasawuf di faxe na nekk sa doomu waxtu kon jamono ju nekk rek saay boo defee bàkkaar na nga dul ko tuub bàkkaar ba ci lu gaaw kon ila baariikum min xable an jaakumul mawtu muddata zaman waaye wa dayf akrimhu isa ataakum wa akrimul karima isa wafaakum bokk na teral ngay teral gan bi sallallahu alayhi wa sallam wax ku gëm yàlla gëm bis ba na teral sa man kaana yuminu billahi wal yawmil axiri fal yukrim dayfahu Sëriñ Tuubaa wax na akrimu dayfa walaw kaana faasixan ndax gan dafa foor na ngeen teral gan donte dafa dikk ngeen xam ne xeli ki ab saay-saay la bu mu tee na ngeen ko teral ndax gan dafa am solo euh, sahabatu rasul euh, mas na nanoo toog di bind alquran karim am ku dikk ci ne leen yéen yéenay wax ne gan caabi aljana la ñu ne ko waaw digg nañ ko ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu wax ne amul kenn koo xam ne danga toog amul kenn kenn kenn koo xam ne danga toog Eh, gan dikkal la nekk ku gëm yàlla nga nekk ku gëm yàlla mu dikkal la ludul ni eh, suñu borom daf koo boole ak ñaari malaayka yaktubaani lahu wa yamxaani ñu koy bindal aw yiw waaye di ko faral aw ñawteef mu ne bépp type boo xam ne gan nga lekk na ko fa ne na suñu borom subhanahu wa taala dana la ca dana la ca eh, bindal aw yiw faral la ca ay ñawteef te say bu gan nga delloo desut la bindal bàkkaar li fekk ngay am ñeen fukki fan loolu moo tax mu ne wa dayfa akrimu isa ataakum wa akrimul karima isa wafakum kon loolu mooy sunu jataayu tey insha allah taala di ñaan sunu borom subhanahu wa taala defal nu ak digg ak ak topp ci bar seexna al xadim aleykum wa wa barakatuh